baa ngi. ñu ko xamee moom maître El Hadj am internet Dakarbuzz TV comme ni ñu ko waxee woon sànq rek ca njëlbéen ba fi ñu nekk mooy palais de la justice de Dakar tey nag di audition spéciale Ousmane Sonko kooku ngeen gis nag moom mooy Maître El Hadji Diouf moom moo wàcc noonu jota bi di génn moom moo génnoon noonu tàllal loxo journaliste yi daal di leen di nuyu moom mi nga xam ne moom la ñu gën a ràññee ci avocat yi nga xam ne mooy avocat wu Adji Sarr mu ngi doon nag doon def ay signes.